salaam sama gars yi nuyu naa leen ziar leen j'espère que yéen ci jàmm man maa ngi kool gars yi tey day ñëw tey defalal leen li nga xamante ne mooy seen rubrique découverte rubrique découverte nag comme ni ma leen ko daan faral di wax rek bépp talent boo xamante ne Sénégalais yi xamaguñ la dañ la indi fii pour ngeen découvrir ko aujourd'hui dem ba fële ci championnat bu autis andil leen ki nga xamante ne mooy Pape Alioune Ndiaye donc Pape Alioune Ndiaye nag buñ ko déggee donc ñu bari seen xel day dem ci Pape Alioune Ndiaye milieu de terrain euh, international sénégal bi yàgg jouer Sénégal mais beaucoup ak ki défenseur central la Pape Alioune Ndiaye bi pour ñi nga xamul mi ngi judd le 4 février 1998 foofee ca France mi ngi am 25 ans di mesurer 2 mètres 3 donc euh, doon ab défenseur central boo xamante ne gaucher la la donc moom nag.

donc moom nag euh, mën nañoo wax parcours euh, pro bi mi ngi ko commencé fële ci Espagne entre 2017 2018 ak club bii di Lorca Lorca Deportiva donc ci ci de division B bu euh, seconda division B bu Espagne donc foofu noonu la commencé parcours li nga xamante ne mooy pro bi après jaar na ay club yu mel ni Vorskla Poltava donc fofu nak fofu la tojee fële brûlé donc club yu bari bëgg ko euh, par la suite mu dem fële ci championnat Autriche mais lata ñuy ñëw fofu dañuy dañuy dem ci dañuy ñëwaat tuuti ci parcours pro bi hein, bi mu débuté fële ca Espagne. donc mom mi ngi dem li nga xamantene fofu en 2017 Espagne donc fofu non bu fi démé rejoindre club boobu di di di Lorca comme ni ma leen ko waxé euh, foofu nag def na fa ay prestations yu bari yu baax a baax a baax a baax macha allah donc foofu noonu muy deux saison 2017 2018 en tant que milieu défensif macha allah parce que un milieu défensif très technique euh, joueur très polyvalent également boo xamante ne mën na jouer comme défenseur central man jouer comme milieu de terrain man jouer comme li nga xamante ne mooy arrière gauche en tout cas. Euh, c'est les gens de joueurs yi nga xamantene tay ji mom ngay soxla ci ci football moderne bref donc mon parcours am ak ak ak Deportivo euh, Lorca donc en 2018 la parce que boobu club bi donc wàcc na euh, quatrième division également moom jouetul ci équipe première bi donc ci la ci la décidé nak daal di contre contrat am ak club bob ngir wuti yenen projet footballistique yo xamantene dina ko mën apporter dara ci carrière donc pendant ce temps là ci la ci la ci la amé blessure bo xamantene ne toog na lu neuf mois neuf mois football donc euh, lolu lolu tibit mom moko xawa empêcher a empêché également mais l'été 2019 malgré eh, que ne accord ak club di eh, club ukrainien bi eh, di Vorskla ci la défé essai bi mu essai a rapidement ci lako dirigeant yu Vorskla gisee donc daal koy signer contrat donc mo commencé la saison 2019 2020 donc bi mu commencé saison bi donc xawona metti au début c'était un peu difficile mais imposé ou non imposé ou non parce que il y a des matchs yoo maintenant amnoko muda na di briller donc ci ci ci les comme comme comme contre Sartar Donetsk comme contre Dynamo Kiev muy club yoo maintenant il yu mag leen foofu ci Ukraine donc club yooyu noonu football footballee ñoom imposé wu rek dañ naan la yow vraiment un potentiel donc ci non nak ci la commencé comme titulaire indiscutable saison 2020 2021 mu dit daal confirmer donc di di accumuler des prestations euh, XXL également ci ci la nekk ci équipe type bi lu bari bari en championnat ukrainien donc euh, mais également également première partie saison bi mu comme meilleur défenseur ñu def ko comme jox ko trophée meilleur défenseur central loolu mu si club yu bari club yu bari convoitisé ko fofé ci Europe yu ci mel West Ham yu ci mel Lille yu ci mel Braga yu ci mel Besiktas donc beaucoup de clubs européens soxla ko euh, donc ci saison bobu loolu di wane encore une fois talent wam loolu encore une fois di wane que ce c'est défenseur bo xamante ne euh, avenir yi amna ci mom espoir également amna ci mom donc gannaaw bi mu jouer pile de 40 matchs ak club bobu di euh, Vorskla Poltava donc ci le quitter quitté donc rejoindre na club bu ñu naan rejoindre également ay Lille ak yooyu noonu mais dafa rejoindre euh, club bu nek fële ci autrice donc mu nek soit bo surprenant nak bo xamanteni bet nañu bari parce que ñu bari jàppoon nañ ken day dem ay West wala ay Lille wala ay Braga mais mu dem club bu ñu reine Rendro Faltas donc fofu la dem donc mu club bo xamanteni je pense que ne public bu bari xamuñu ko visibilité bi am amoon daw amuko ren donc motax ñu bari waxatu ci moom foofu tamit mu ngi fay def ay prestations am solo hein vraiment mais buñ waxé waxee loolu ah hein, au delà de ça il faut ñu wax ci style de jeu bi mu yor donc mom euh, défenseur central lay occupé 1 mètre 2 mètres lay def 2 mètres la bo xam 2 mètres lay dem mais c'est un défenseur bo xamantene ne euh, il est capable de jouer comme milieu défensif fofu lañ ko fofu lañ ko former mais également fois jouer comme arrière droite comme le c'est un joueur très polyvalent mais au de delà euh, de son gabarit ak y bi 2 mètres mais vraiment physiquement de également techniquement de taxaw euh, rare joueur pour yor am li nga xamantene moy technicité bi mo am donc vraiment lool nak du ñun ñoko wax entraîneur am bi ko yoroon foofee ca championnat bu Ukraine si club bobu di Vorskla mom moko wax donc néna na c'est un jour bo xamantene am na qualité technique bu exceptionnel donc c'est l'un des meilleurs défenseurs euh, en Europe loolu loolu loolu le coach am wax donc euh, li lañ leen indi loon pour ngeen découvrir euh, ki nga xamantene moy mooy Pape Aliou Ndiaye donc peut-être que un jour viendra dina am place am ci équipe bu Sénégal Euh, pourquoi pas sax ci prochaine échéance yi ñu jëm euh, vu que ne gis nañ suñu défenseur central yu bari dañoo blessé kon mbokki leen ne loolu di wax wéy like wéy leen di commenter jëf